الحب اللي عمره ما يشمت asalaamaaleykum mbokki déglukat yi seen mbokk seen xarit pasteur Ahmed Fall moo dellu siwaat ak yéen ci sunu émission kàddu gu sell gi te di leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di dellu di sant yàlla sunu boroom ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist
الله asalaamaaleykum sunu mbokki auditeurs yi sunu mbokk yi nga xam ne sunu am di jàmm yi diñuy faral di déglu ci sunu émission kàddu gu sell gi seen mbokk seen xarit pasteur Ahmed Fall moo dellu siwaat ak yéen ci sunu émission di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di sant yàlla sunu boroom mi nga xam ne moo ñu may ba ñu tal ko ba toog fii di def ak yéen émission bi nga xam ne mooy kàddu gu sell gi tey jii nag ni ma koy faral di defee saa su nekk damay ubbi téere bu sell bi nga xam ne moom lañu yàlla sunu boroom jox muy biibal bi jàng ci kàddu yu am solo yooyu nga xam ne wax nañu ko ngir mu doon yokkute mu doon njariñ ci ñun ñépp tey jii nag balaa may jàng saar yu am solo yooyu nekk ci téere bu sell bi dama bëgg wax li nga xam ne moom mooy ponk bi ma bëgg waxtaanee tey jii tey jii dama bëgg ñu bàyyi xel tuuti ci ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi ñu mag maanaam ñi nga xam ne ñoo ñu féete kanam ñooy sunuy mag yàlla sunu borom dafa am jëmm yoo xam ne dafa ne jëmm yooyu dama leen teral dama leen jox cër moo tax mu soob ko mu wax ci jëmm yooyu fii ci biir téereem bu sell bi di biibal bi yàlla sunu boroom dafa bëgg itam ñu xam fan la teg jëmm yooyu ban cër la leen jox ba nga xam ne ñun itam danañ teg jëmm yooyu fañ leen war a teg place ba nga xam ne moom la leen yàlla jox weg leen wormaal leen ni ko yàlla sunu boroom bëggee jëmm yooyu nag bi ci njëkk mooy waajur te mës naa def fii ab waxtaan boo xam ne dootuma ci dellu siwaat mais waxtaan boo xam ne jàng nañ ci téere bu sell bi ne yàlla sunu boroom teg na waajur foo xam ne tegu fa kenn ndaxte bi mu waxee ak Musa ne ko Musa dama lay jox tawreet lii mooy tawreet bi nga xamee ne nee na Musa dama lay jox fukki ndigaale yi nga xam ne moom la ñu tuddee ci nasaraan dix commandements yàlla dafa tàmbalee wax ci boppam bi mu paree wax ci boppam ak cër bi nga xam ne war nañ ko jox ki mu ci sës rëkk mooy waajur waxul foofu keneen ku dul waajur waajur rek la wax mu ne boo leen paree ci man gestu leen seeni waajur seen ñaari waajur seen waajur wu góor ak seen waajur wu jigéen kon waajur moom place bi ñu leen di jox fi ñu leen di teg waruñu fa teg benn mbindeef bu loolu weesoo yàlla sunu boroom wax ci ñi nga xam ne ñooy màgget yi na nañ leen tuddee noonu màgget yi ñi nga xam ne ñooy boroom béjaaw yi fii ci Sénégal ñu leen di wax troisième âge yàlla sunu boroom wax ak Musa ci kóllëre gu njëkk gi ñu naan ko ancien testament wax ak ñoom ci téere bi ñu dippee lévitique wax ak ñoom ci aaya wax ak moom ci aaya fukk ak juróom-ñeent saar fanweer ak ñaar mu ne da ngeen jóg ci kanamu màgget yi na nga na nga leen weg na ngeen weg màgget yi boo leen wegee màgget yi weg ngeen ma man maay yàlla seen boroom loolu la yàlla sunu boroom wax Musaa ne ko jàngal ko bani Israël jàngal ko ñépp ñi nga xam ne gëm nañu ci man jàngal ko bépp mbindeef boo xam ne man maa la sàkk yàlla sunu boroom ne da ngeen jóg taxaw ci kanamu ñi nga xam ne ñoo mag ñi nee na weg leen mag ñi nee na boo leen wegee mag ñi weg ngeen ma man maay yàlla seen boroom te fii ni mu ko waxee sax ci téere bu sell bi dafa ne ñi nga xam ne dañu am karaw gu weex ñi nga xam ne dañu bijaaw mag ñi yàlla sunu boroom wax na ci mag ñi yàlla sunu boroom jàngal nañu ci mag ñi yàlla sunu boroom jox na cër mag ñi yàlla sunu boroom won nañu fan la teg mag ñi muy góor muy jigéen yàlla sunu boroom nee na bu mag nekkee ci sa kanam yow mi nga xam ne yaa ko féete suuf da nga war a jóg taxaw ci kanamam jóg taxaw ci kanamu nit nag mooy lan mooy da ngay màndargaal weg gi nga xam ne weg nga ko danga koy wormaal bu nit jëmee ñëw ci yow nga jóg taxaw laata muy yegsi kooku danga koy won ne ko yow kat weg nga ko danga koy won ne ko yaa ngi koy wormaal mag du jëm ci yow nga toog fi nga toog bañ a jóg yàlla sunu boroom nee na dee leen jóg ci kanamu mag ñi dee leen wekk mag ñi dee leen wormaal mag ñi bu boobaa man ngeen wekk man ngeen wormaal kon ñu gis ne yàlla sunu boroom mi ngi ñuy jàngal foofu mbir mu am solo mooy mag ci biir askan lu am solo la mag ci biir askan am na cër goo xam ne moom lañ ko war a jox mag ci biir askan am na xool goo xam ne moom lañ ko war a xoolee am na bët yuñ ko war a xoolee dama leen doon wax sànq ne am na jëmm yoo xam ne yàlla sunu boroom daf leen cëral bi ci ñëkk muy waajur mu cëral ñi nga xam ne ay mag lañu jamono nag di dox jukko yi di soppeeku jukko yi di soppeeku ba nga xam ne tey jii am na askan yoo xam ne dummóoyu nañu mag ñi toppatootuñu mag ñi wegatuñ leen askanu Sénégal ak yeneeni askan da ngay toog yenn saa yi gis ñu def mag jëf joo xam ne ca dëgg-dëgg ah jëf jooju rafetul te képp koo xam ne def nga mag jëf joo xam ne rafetul yàlla sunu boroom mi ngi koy gis ndaxte yàlla mi nañu boo leen wegee mag man ngeen weg kon bu ñu ñàkkee weg mag yàlla sunu boroom la ñu ñàkk weg bu ñu defee mag jëf joo xam ne du noonu mi ngi mel ne ñi ngi taxaw di jàmbaarloog yàlla sunu boroom te bu boobaa danañ ko gis yàlla sunu boroom mi ngi ñuy jàngal ci téereem bu sell bi ci bible bi ne dañu war a may cër mag damay faral di tukki damay faral di dem ci yenn dëkk yi comme dëkku nasaraan yi yenn saa yi nag ñu jël lu nekk teg ko ci ndoddu nasaraan yi nekkat nii la ñu mel na la la ñu mel ma am loo xam ne seetlu naa ko ci samay tukki bu ma demee fële ci Amérique dama fay faral di dem damay gis ne bu ma jëlee saxaar wala ma jël kaar yi maanaam comme sunu tataa yi fii sunu dem dikk yi damay gis ci biir dañuy bind nekkat place yi mag yi ñoo ko yelloo dañuy bind ne bu saxaar si feesee seen métro yi wala bu seen oto yi seen seen seen dem dikk yi naa ko tuddee noonu feesee bu mag dikkee bu duggee ci biir ñi nga xam ne ñoo ko féete suuf dañu war a jóg jox ko place bi mu toog tudd loo xam ne dañ ko bind rek noonu bàyyi dañ ko def loi dañ ko def loi en tout cas de li ma gis boo demee Amérique loolu am na fa boo duggee ci saxaar wala nga dugg ci seen loolu nga xam ne moom lañ tuddee transport public dañ la koy bindal ne la ah ñi nga xam ne ñooy troisième âge yi ñoom ñoo yelloo place yi kon bu feesee bu ñu duggee nang leen ko bàyyee nga gis Sénégal da ngay dugg ci oto nekk waxambaane toll ci sa diggu doole toog war a jóge Dakar dem ba Tëngéej wala sax ba Bargny mu doon yoon bu gudd ak embouteillage yi mag dugg nga gis ne kat kii ca dëgg-dëgg at yi bari na loof na sonn na li mu attanoon attanatu ko nga gis ko mu dugg nga koy xool wala nga xool fële doo ko may fu mu toog kooku weguloo ko yàlla sunu boroom nee na loolu maa ngi koy gis yàlla sunu boroom di ñu wax ne bu ñu jàngee ci benn timote ci aaya juróom saar benn nee na kenn warul gëdd wala boo kenn du gëdd mag mag kenn du ko gëdd mag kenn du wax ak moom ba sa baat jëm ci kaw yàlla sunu borom moo ko wax ci téereem bu sell bi mooy saar bi mu leen wax sànq bu ñu jàngee ci kóllëre gu bees bi jàng ci benn timote ci aayu juróom saar benn yàllaa ngi wax foofu nee na bu leen gëdd mag mu naan del wekk mag del wax ak mag ak yar ak teggin yàlla sunu borom nee na kenn du gëdd mag doo fekk ki nga xam ne moo la féete kanam ci ay at yu bari doo fekk ki nga xam ne mi ngi ak karawam gu weex nga jàkkaarloo moom di ko gëdd yàlla sunu borom nee na loolu kenn du ko def yàlla sunu borom kon di ñuy jàngal foofu ni nga xamee ne noonu la ñu war a waxee ak mag mag kuy wax ak moom da nga war a ànd ak yar ak teggin boo àndee ak yar ak teggin yaa ngi wone ci kanamu yàlla sa borom yow mi nga xam ne jaamam nga te moo la sàkk yaa ngi koy won yar ak teggin boo wonee mag yar ak teggin yaa ngi woon yàlla yar ak teggin yàlla nee na loolu laa bëgg noonu naa bëgg ngeen yi defee moo tax mu wax ak Musa ne jàngalal bani Israël jàngalal doomu aadama yi yow sama yonent waxal ñu dégg nee na boo gisee mag na nga jóg ci kanamam boo gisee borom bejjaaw na nga jóg ci kanamam na nga wekk borom bejjaaw na nga wekk mag kon man nga wekk man maa yàlla seen borom kon mbokki auditeurs yi ñu déglu tuuti cant balaa ñuy dellu si ñaareelu xaaju waxtaan wi.
علمني المحبة اللي ديما تصبر محبة منك ما تفكر في الشر علمني المحبة اللي ديما تصبر محبة منك ما تفكر في الشر فجي همومي قلبي راه عمار فجي همومي قلبي راه عمار لا بك يا يسوع راه ديما انعطار لا بك يا يسوع راه ديما انعطار
kon mbokki auditeurs yi ñu déglu tuuti cant bala ñuy dugg ci ñaareelu xaaju waxtaan wi ma leen di fàttali itam ne mën ngeen ñu déglu ci internet bi boo leen demee ci www point kàddugu sell gi point com boo leen demee ci site boobu lépp li nga xam ne waxtaan la ñu koy def ci sunu programme bi kàddugu sell gi mën ngeen ko déglu foofu
وشد بايديا واعطيني الصبر راني مولوع وبيك نخبر وشد بايديا واعطيني الصبر راني مولوع وبيك نخبر واللي تبعك عمره ما يخسر واللي تبعك عمره ما يخسر علمني المحبة اللي كلمة صبر علمني المحبة اللي كلمة صبر علمني المحبة اللي ديما تصبر محبة منك ما تفكر في الشر علمني المحبة اللي ديما تصبر محبة منك ما تفكر في الشر فجي همومي قلبي راه عمار فجي همومي قلبي راه عمار لا بك يا يسوع راه ديما عطار لا بك يا يسوع راه ديما عطار
jërëjëf mbokki auditeurs yi ñuy déglu fii ci sunu émission kàddu gu sell gi ak seen mbokk seen xarit pasteur Ahmed Fall kon mbokk auditeurs yi gis nañu fi yàlla sunu boroom teg mag ñi ndaxte yàlla soob na ko mu wax lu jëm ci mag ñi ñu mu nekk ci téereem bu sell bi ci biibal bi bu ñu jàngee itam ci téere bu sell bi ci kàddu yu xelu yi ñu koy wax ci nasaraan proverbe lii la yàlla sunu boroom wax bu ñu jàngee ci aaya ñaar fukk ak ñett ci saar ñaar fukk ak ñaar yàllaa ngi wax déglul sa baay bi la jur bu sa ndey màgget bu ko sàggane déglul sa baay bi la jur bu sa ndey màggetee bu ko sàggane yàlla sunu boroom di wax ne boo amee waajur mu dem ba màgget bul ko sàggane yàlla sunu boroom di wax déglul sa waajur wu góor bi la jur wante sa waajur wu jigéen bu demee ba màgget bu ko sàggane kenn warul sàggane mag kenn warul sàggane mag rawatina nag nga am sa waajur mu dem ba màgget nga koy sàggane kenn du sàggane mag kenn du jël mag teg ko fële mel ne bokkatul ndaxte kat dañ naan ah léegi da day naax lu ko neex mu wax lu ko neex mu def ñu jël la teg la fële ber la déedéet yàlla sunu boroom nee na bul def lu mel noonu nee na bu nit ki demee ba màgget na ngeen ko gën a sës ci seen bopp nee na bu nit ki demee ba màgget na ngeen gën a bàyyi xel ci moom na ngeen ko sës ci seen bopp na ngeen bàyyi xel ci moom na ngeen ko wekk na ngeen ko wormaal lépp li nga xam ne soxla na ko war na ngeen ko ko defal dañuy gis nag léegi ci jamono boo amee waajur mu dem ba màgget nga tàmbali ko sàggane fekk foofu la la soxla moom nga tàmbali ko dummóoyu am na yu bari yoo xam ne da koy soxla am na yu bari yoo xam ne yaramam da koy soxla mbir yooyu nga xam ne nag soxla na ko ngay tàmbali yow di ko sàggane dootoo ci bàyyi xel yàlla sunu borom nee na kon weguloo kooku kon boog weguloo ko te bu ñu xoolee ci téere bu sell bi lii nga xam ne yàlla sunu borom wax nañu ko ci mag ñi képp koo xam ne def nga ko yàlla sunu borom nee na danaa la teral danaa la barkel bi ibrahima demee ba nekk màgget doomam moo nekkoon ci ginnaawam fab ko boot ko yore ko ci anam yu rafet bu ñu xoolee ci téere bu sell bi bi noohim demee ba nekk màgget ay doomam dañ ko yore ci anam yu rafet bu ñu xoolee ci téere bu sell bi saa yu màgget mësa wàcc ci diiwaan dañ ko daan teral loolu la yàlla jàngaloon bani Israël ne leen dee leen teral dee leen wekk ñi nga xam ne ay mag lañu te ñu ngi seen biir kon mag dañ ko war a teral mag dañ ko war a wekk yàlla sunu borom di wax bu ñu jàngee ci kóllëre gu bees gi ci bataaxal bi ñu dippee Pierre un Pierre aaya juróom saar juróom yàllaa ngi wax foofu noonu itam yéen ndaw ñi na ngeen déggal mag ñi yàlla sunu borom mi ngi wax fii ak ndaw yi ne leen ñooñu nga xam ne ay mag lañu ay màgget lañu dee leen déggal mag dañ koy déggal mag dañ koy déggal dañ koy jox cër ak nag fu mu mënta bokk ak fu mu mënta bokk mag dañ koy jox cër yenn saa yi nga dégg ci ci ci yenn yenn place yi yenn yenn bërëb yi nga dégg ay ndaw di yàq mag loo xam ne ah loolu rafetul xëy na dañu bokk di def politique wala dañu bokk di def yenn yi ñu tàmbali di leen yàq loo xam ne ah loolu jaaduwul yàlla sunu borom ne déedéet déedéet mag booy wax ak moom dangay ànd ak kersa mag booy wax ak moom dangay ànd ak yar ak teggin du caageenu nag mag bi kat dafa la fekk si ci béréb bi wala mag bi kat dafa nii wala nale kon lu ma neex wax ko moo ko teg boppam déedéet yàlla nee na dee leen weg mag te boo wegee mag yàlla nga weg kon ku wegul mag yàlla nga wegul ku yàq mag yenn yi yàlla sunu borom mi ngi koy dégg mi ngi koy gis moo tax mu cëral leen ci téereem bu sell bi ma ko doon wax sànq nag dañu toll ci société yoo xam ne jamono yoo xam ne léegi jukko yaa ngi soppeeku jukko yaa ngi soppeeku li nga xam ne moom lañu yàlla sunu borom wax ñi ngi koy teg fële indi li nga xam ne moom la ñu jàpp ne lii moo ànd ak jamono yàlla sunu boroom nañu déedéet ndaxte li yàlla wax rek moo nekk ak lu jamono indi indi indi indi mënul indi loo xam ne dana féete kaw li yàlla wax bu dee da nga gëm de bu dee da nga gëm yàlla bu dee jàpp nga ne yow mbindeef nga boo xam ne yàllaa la sàkk te yaa ngi déggal yàlla amul lu jamono mën a indi loo xam ne dana féete kaw li yàlla sunu borom wax te yàlla moo ne dee leen wekk mag ñi dee leen wekk mag ñi dee leen jóg taxaw ci kanamu ki nga xam ne am na karaw gu weex dee leen may cër mag ñi bu leen gëdd mag ñi dee leen déggal mag ñi bu ñu sàggane mag ñi bu ñu sàggane mag ñi rawatina nag sunuy waajur bu ñu demee ba màgget bu ñu leen sàggane yàlla sunu borom nee na bu leen sàggane mag ñi kon société bu nekk war na bàyyi xel ci mag ñi nga xam ne ñi ngi ci seen biir ndaw yi war nañ bàyyi xel ci mag ñi nga xam ne ñi ngi ci seen biir mag dañ koy xool ak bëtu yërmande mag dañ koy jox place woo xam ne bi ko yàlla sunu borom jox mag dañ ko war a teg foo xam ne duñ fa teg kenn mag dañ ko war a cëral moo tax yàlla sunu borom ni ma ko waxee woon sànq mu am jëmm yoo xam ne mbindeef yoo xam ne da leen cëral cëral waajur cëral mag wax lu bari nag ci mag jàngal ñu ko bind ko ci téereem bu sell bi ci biibal bi ngir ñu mën a sëkkandiku ci loolu jox mag cër gi nga xam ne moom lañ ko war a jox su ma duggee ci yenn place yi gis ne maanaam béréb yi nga xam ne dañ fay fayee ndox wala ñu fay fayee courant ñu defal la benn guichet boo xam ne dañ ko tuddee troisième âge mbir yu mel noonu yu am solo la mbir yu mel noonu lu baax la yu mel noonu dañ ko war di ko def yu mel noonu dañ ko war di ko sàmm di ko war di ko gëm bu ñu duggee ci oto gis mag dañu war a jóg jox ko mu toog bu ñu gisee mag muy jéggi tali dañ ko war a dimbale mu jéggi tali bu ñu gisee mag mu dëgmal ñëw ci ñun dañu war a jóg gàttandu ko dañu war a jox cër mag ñi yàlla sunu borom moo wax loolu yàlla sunu borom moo diggaale loolu moo tax mu ne Musaa yonentam ba ne ko waxal ak bani Israël waxal ak ñi nga xam ne samay jaam lañu nee leen bu ñu gisee mag dañu war a jóg ci kanamam nañuy weg mag bu ñu wegee mag dañ ma weg man ma yàlla seen borom may ñaan yàlla na askanu Sénégal nekk askan boo xam ne dañuy weg mag yàlla nañu yàlla def askan boo xam ne dañuy jox mag cër gi nga xam ne moom la yelloo yàlla nañu yàlla dimbale liggéey ci sunu biir xol ba nga xam ne fu ñu fekk mag danañ ko teral yàlla nañu yàlla may ñuy yërëm mag ñi yàlla nañu yàlla may ñuy gestu mag ñi yàlla nañu yàlla may ñuy teg sunuy mag ñi ci place bi nga xam ne moom la yàlla sunu borom bëgg ñu teg leen fa képp koo xam ne yaa ngi tuutil mag képp koo xam ne yaa ngi ñàkkal fayda mag ñi képp koo xam ne yaa ngi dummóoyu mag ñi kooku de na ko wóor ne yàlla sunu boroom mi ngi gis loolu muy def te loolu muy def dëppoowul ak li yàlla sunu boroom wax li yàlla sunu boroom xaar ci moom kon mbokki auditeurs yi ñu yemale fii sunu waxtaan wi te di leen fàttali sunu numéro de téléphone man pasteur Ahmed Fall ci sunu programme kàddu gu sell gi di 77 074 35 35 yàlla na yàlla sunu borom wéy di barkeel askanu Sénégal di barkeel sunu réew mi di barkeel képp koo xam ne yaa ngi yeewoo fii ngay doomu Sénégal ak nga ñàkk doon doomu Sénégal yàlla na yàlla sunu borom wéy di jàppale ñi nga xam ne ñoom ñooy sunu kilifa te nga xam ne ñoom ñoo ŋànk réew mi yàlla na yàlla sunu borom wéy di wàcce ay xéewalam fii ci biir Sénégal ñi ngi dëgmal nawet yàlla na ñu yàlla sunu borom may nawet goo xam ne nawet gu baax la ci barke ci daraja ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ yàlla na ñu yàlla sunu borom dimbale ba nga xam ne bu ñu génnee ci nawet bi danañ gis ne ci dëgg-dëgg nawet bu baax la yàlla na ñu yàlla sunu borom dimbale ba sunu koom-koom jëm kanam képp koo xam ne yaa ngi yeewoo Sénégal nga mën ci jëriñoo ci darajay Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ amiin
mbokki déglukat yi fii lañuy yemale sunu émission maa ngi leen di sant ci déglu bi te di leen fàttale sunu téléphone di 77 074 35 35 yàlla na yàlla sunu boroom wéy di leen barkeel tey wàcce ay yiwam ci seen kaw ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ mën ngeen jokkoo ak ñun ci 77 074 35 35